mbokk yi ci beneen yoon ñu ngi leen a nuyu rek ñu ngi taxaw fii ak suñ papa kii di imam Abdoulaye Ba nga xam ne mooy Ilimani Nema Nazir nga xam ne daf dee ñëw fii ci Seattle nag ah, yàlla def na duñ ne buleet ñëw na fi imam ñëwel nii rek gars yi seen noise ba xaw a bari fële imam yàlla def nga fekkewaat tabaski bi fii rek ñu la laaj ban message nga am pour Gambien yi la seetaan euh, tout le monde waaye ñu ngay sant yàlla mhm. di julli ci yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mhm. di sant yàlla mi nga xam ne moo ñu fekkuloo julli gi mhm. nga xam ne am na ñeneen ñoo xam ne fekkewuñ ko te defuñ yàlla dara lu tax yàlla yóbbu ko yóbbu leen ñu nit yàlla fekkuloo ñu ko te defaluñ yàlla dara lu tax mu bañu fi lu ko mooy ne yàlla ñu wërsëgal loolu muy bés boo xam ne bésu mbégte la bésu jàmm la bésu saraxe la bésu sangu la bésu sol yére yu rafet la yére yu set la bésu la bés itam delloo sa bopp ci yàlla mhm. bés tudd yàlla la tam mhm. la ca gën la ca gën a ndaw lu mu bon bon ngay wax allahu akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukratan wa asila mhm. boo ko waxee rek yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ngi mel ni yaa ngi teg sa loxo bi ca kaaba gu ga tudd yàlla kon gambien yi ñu ngi leen di gërëm di leen sant ndax itte biñ def ba mën a daje benn place ñoom ak seen i njaboot yëpp mën a fàttaliku foofa nga xam ne fa lañ jóge woon te suñ réew ya nga xam ne suñ maam yeeg suñ maam mataar yi lii lañ xam lii la ñuy def yàlla digal ñu ko ca suñ maam yonent yàlla ibrahim alayhi salaam ba nga xamante ne namm naa rendi doomam ba muy ismail yàlla ne wa fadaynahu bi zibhin azim man ñu dal di ko uutale ci xuyam xar moo xam ne bu duuf la gerog keroog ba tey la ko yàlla def muy sunna boo xam ne bu wéy la ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bésu julli dafa jot mu daal di génn ci sahaaba yi mhm. mu ne yéen a ngi toog ñu ne ko waaw mu ne seen bés bi tey bésu lekk la bésu naan la waaye lekk beeg naan bi bu leen ci em bu ngeen lekkee bu ngeen naanee na ngeen tudd yàlla mi nga xam ne moo leen wërsëgal li ngeen di lekk ndax doomu aadama bu eewoo samp tànkam taxaw rek mu ne war naa sant yàlla ndax am na ku eewu mënta samp tànkam taxaw doomu aadama lépp lu mu am rek bëgg naa am leneen te leneen loolu yàllaa ko yore doomu aadama bu bu ndëkkee bëgg naa añ bu añee bugg naa reer lépp lu bu benn mbubu bugg naa sol beneen mhm. lay lekkuloo ki lay naan loo xanaa xamoo ne man la mënoo wëri keneen koo xam ne dana la defal loo xam ne man yàlla mënuma la koo defal mhm. lépp loo xam ne doomu aadama am na ku ci xéewal rek mhm. na ko gërëmee yàlla na ko sante yàlla mhm. kon bés bii tey bésu iidul fitri bét bét bésu iidul adhal mubaarak bési sant yàlla la bési julli la bési saraxe la bési boo xëyee suba da nga war a oor ba nga ñibbi nga soog a dogee ci sa yàpp tabaski bi yonent bi lu mu ne loolu mu ngi tolloog kóoru juróom benn junney at la tolloon waaw caamen caamen nag mënu gu gàtt la gàtt nga la waaye lu jafe la kon kenn ku ne rek waroon naa def loolu ni ki démb bésu arafa la woon bésu or la woon yonent bi digal ñu ne tey buñ jullee ñaari rakka yi ba ñu ba ñu saafuwante buñ ñibee nañ ziyaarante boo amee ku feebar nanga ko ziare boo amee xarit nanga ko ziare boo amee wayjur nanga ko ziare te wayjur yi nañ leen fonk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla bi mu diglee ne nañ ko jaamu lam ci teg mooy ñaari wayjur bu dee ñu ngay dund nang leen ormal nga defal leen bu fekkee fekkee génn nañ àddina foo julli nang leen ñaanal mhm. wa ak waajur mën ta wàcc ci doom mhm. kon yéen ñëpp xam nañ ne li leen li tax ngeen ñëw fi mhm. mooy teral seen waajur waaw loolu leen fi indi mhm. ndax gis nañ ne kenn mhm. yéen ñi ne fi yëpp kenn ko ne def fexe na ba tabax ab kër dugal fa ay waajuram dugal fa ay njabootam dugal fa ay soxnam loolu nag ñu leen di ñaan loolu yokk rek la doomu aadama fekk yaa ngay jaar ci yoon danga nga egg fa nga jëm waaye ku jaarul ci yoon nag doo egg ci dëkk mukk fi mu ne nii ñu ngi naan maa ngi dem Seattle il faut nga jaar yoon bu dem Seattle wala doo fa egg waaw kon ñun ñu ngi jëm ci yàlla kon nañ jaar ci yoon wi nga xam ne moom lañ yàlla tracé pour ñu jaar ci mu muy muy yoonu mm-hmm. muñlante mm-hmm. muy yoonu dimbalante mm-hmm. mu yoonu yërëmante yàlla yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne yërëm leen ñi ne ci kaw suuf ki ne ci asamaan ca kaw yërëm leen te kooku mooy yàlla mu ne yërëm gone mu ne bu ko defee gone ga su maggee mën a fàttaliku loolu. Mhm. ndax gone du fàtte. Mhm. xale tam ñu yar leen li ñu mhm. nekk te ñu xam ko. te te te ñu xamoon ko fa leen ñëw di ko fi def. ñu dugal ci xale yi ñoom it ñu mën koo xam. moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan bu ngeen di julli ji na di yóbbu seen i jabar. yóbbu seen doom. yóbbu seen xarit. hatta jigéen ñi nga xam ne sax dañoo am dërëti wasin wala mbërëg. yonent bi ne dañu war a dem. dañoo war bi waaw nga xam ne moom la yàlla di dottil jaam yi yeneen sallallahu alayhi wasallam bëj tabaski ba jaare yoon bi booy wëññeeku jaaral beneen yoon ñu ne ko tax mu ne malaaka yi dañuy taxaw ci yoon yi di seed jaamu yàlla yi mm-hmm. di leen seede li nga xam ne moom la ñuy def mm-hmm. bu ko defee ñii ñaanal la ñaanal la fekk di déwén bi di yow woon mm-hmm. yàlla moo am loolu moo kon ko yàlla defal ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam yéen communauté waa Seattle yépp